يدفع به عن البلاء ثم على من حيث مسسا مدد يبرأ بلا رد وفاز بالخلاء kon noonu gisoon ko jëfandikoo jëfe li xam ne sëñ bi moom la digle ci ñëpp war cee marché ci màggal gi nga xam ne mu dëgmal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 asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu bokki taalibe yi yëpp taalibe mu yëpp di nuyu jullit jullit yëpp man Serigne Sidi Diène moom Serigne Naar Diène taalibe Serigne Naar Diène Serigne Mountakha dafa joxe ndigal képp ku di taalibe tey màggal si na nga takk masque te fonk ko kon bépp taalibe màggal si na nga wut masque nga takk ko kër kilifa yi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 حمدا لمنزل لنا